vous êtes booy Fass quoi da nga nekk booy town nga nekk ay booy bari ñi mbaa yooyu tantôt doo ko mun quoi xam nga nag mais on va essayer mun nga battre battre. damay battre nii damay fàttali jamonoy jeu de set ay ay ah, ay ay jeu de bouc. jeu fi ñu tàmbalee yow mooy dina laaj ndax xam nga àdduna fi ñu laaj nag moom mooy Angleterre. ci ban continent la nekk Angleterre fu mu nekk Europe la nekk wala Asie Angleterre Amérique waaw ah, moom moo xam eh, la nekk Angleterre ah. Ah, Angleterre kon boo gaay sama gaay Angleterre mi ngi aux États-Unis loolu la Forza wax tak ban année lañu créé CNG de lutte ndax le 21 mars 2014 la wala 1er janvier 2000 la wala le 8 juin 1980 la ban la ci at yooyu. waxalal ma dégg. CNG de lutte. Hmm. ñu ngi ci ban hmm. ndax 1994 hmm. la. ndax le 1er janvier 2000 la ndax le 8 juin. 1980 ban la ci mars. mois de mars 2014. Euh, non ban écrit yi moo bi ñuy wooyee dóor dóoraat ban écrit yi moo dóor dóoraat ndax. ah Bombardier lay doon wala kati deux la wala Zos la wala booy Diop naan la. Zos. Zos nekk ci écurie. doo dooraat Forza ñetti mbër yi may yi ma leen limal nii kan moo ci nekkagul roi des arènes ndax Bombardier la wala Modou la. wala Balla Gaye numéro 2 la. Ah, je pense que Modou moo nekk roi des arènes. Bombardier nekk na ko. Bombardier nekk na ko deux fois. Hmm. Balla Gaye nekk na ko benn yoon. Modou mu nekk roi ba tey ñu ngi ñëw yow ci Afrique tey maa ngi ci Afrique ah. lan moo wuutale drapeau bu Sénégal ak bu Mali. Euh, drapeau bu Sénégal ak bu Mali Sénégal dañu am verte zone douze am étoile ci digg bi waaw loolu la ñu Mali nag. Mali Mali verte verte zone douze mais amul étoile. yow booy bëre hmm. lan ngay lan nga war a lekk ci bisu combat bi. ah man nag su may bëree ma xëyee daal bu benn heure bi taamu naa sa yi ñu defal ma fonde bu baax moom laay na xëy suba teel daal ma xëyee moom laay njëkk lekk. ñaata yoon. la ñuy may mbër mi mu génn géew bi laata CNG di ko sanctionné maanaam def li naan dagg xaalisam à partir de ñaata yoon la CNG di commencé dagg xaalisu mbër mi ci ay génn. ñaata yoon CNG je pense que bi bi ñu laa commencé dagg nañ la affecté deux fois troisième fois ñu commencé di dagg. dinañ la dinañ la may deux fois te troisième fois bi moom si la ñuy commencé di dagg sa xaalis. allah. rien à dire. Forza ci yan condition la arbitre di arrêté combat fekk combat bi jeexagul maanaam arbitre bi ñuy bëri ba mu yàgg mu arrêté combat ba tas ko moo xam dafay def match nul moo xam dafay joxe victoire waaye daal dina ko arrêté te ba jotagul. feem daawul encore. waaw loolu ci anam yooyu daal anam yi lañ ci gën a lay anam yi laas gën a jàpp mooy que benn bi may njëkk mooy que mbër bi gaañoo mootul bëre arbitre na fa arrêté combat bi mhm. mooy que mbër bi am mbër bi génn cinq fois si ci ci géew bi avec cinq avertissement boo amee nañ arrêté combat bi te du jeex beneen bi temps bi su jeexee xanaa ok. Hmm. Forza ñaata minute la may mbër pour mu tuus ko ci biir làmb ji. Hmm, je pense que bu dee grand combat la dix la. Forza ba tey ma des ak kan nañuy wooyee ci promoteur yi promoteur de l'alternance ndax Abdou Aziz Ndiaye la ba tey wala muy Serigne Modou Niang wala Luc Nicolaï euh, le promoteur l'alternance euh, Serigne Modou Niang Forza hmm. yan action mooy action yi nga xamante ne dañ koy tere ci biir bëri yan action la ñuy tere ci yu yoo xam ne boo ko defee arbitre dina àtte yow mbaa mu àtte sanctionné la. waaw daf na benn bu njëkk mooy dóor ci loos. Mhm. arbitre da tere nga jàpp benn baaram arbitre da koy tere ak nga mbëkk arbitre da koy soo màttee aussi arbitre da koy da koy tere. léegi li may doole foofu rek moom mooy désormais mbëkk. dañ lay disqualifié dootoo bëreeti boo mbëkkee rek arbitre bi dafa ñëw arrêté bi rek disqualifié la nga bokkatoo ci combat bi ba pare am sanction bu lay topp di ko toppaat mooy aussi soo mattaatee ba ñu gis na matt bi c'est avéré matt nga ba ba mu leer arbitre bi dañ lay disqualifié léegi dootuñu la avertir dootuñu nangam disqualification tout de la yooyu laaj arène Adrien Senghor ci ban quartier la nekk actuellement fii ci Dakar ban quartier ba mu nekk lu mu tudd ndax Yaraax la wala Géejawaay la wala boog Grand Yoff la. Ah, adresse Senghor xam naa ne fu ma ràññee la bu baax foofu ñu ngi koy woowee Grand Yoff.